ci benn salaatu ala nabi ñu ñaanal ko jabatam bismillah rabbal alamin amin ya rabbal alamin amin amin ya rabbal alamin amin ya rabbi amin ya rabbi xooloo amin amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin amin la ilaha bës bi tuuti rek laa si yàlla. ci naaj ixlaas ñetti salaatul fatiha yéen a ci seen mag ñi xalifatul muslimin di ñaan yàlla yàlla fi yàlla bàyyil dolli wéram defar ko na teel defar karakam yëpp te Mouhamadou Al Bachir mu seen war Babacar meññe leen di ñaanal nee na jullit ñëpp timit seen di imaam mi war a taxee waxtaan wi yal na ko borom bi dolli lam dafa kër mboolem jullit si gàttal daal bay mu ne ñu fi aajo waay yal na faj ñu fi tiis waay yal na ko teggi ñu fi jàngoro waay yal na ko yàlla nee na yàlla bu mu doon suñu lu jël tal appel yàlla nu yàlla may ay ati at yi ñëw di def bi wala may bàyyi la yow teel a isaar barke ñetti fatiha ñetti ixlaas ñetti salaatul fatiha آمين آمين آمين آمين يا رب العالمين آمين آمين آمين يا رب آمين آمين آمين آمين آمين يا رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين آمين يا رب آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين آمين آمين آمين يا رب

وجميع إخوة الشركاء أن ترحب بكم أجمل الرحب وأشكركم جزيل الشكر على توفيقكم دعوتنا وتشريفنا وتكريمكم معنا في هذه الحياة المباركة جم ذلك وجزاكم الله عنا وعن الدين خير جزاء أيها الحضور الكرام واجعلنا من المتقين مفرة الأخرى لإحياء الذكرى الأول من شعبان الذي رفع فيه سيدنا إمام الله عليه السلام دعوته المباركة في وقت الضحى بالتحديد وجهر فيه بالدعوة بإذن الله الإنس والجن إلى إخلاص العبادة لله والنفس الشركي بكل أنواعه ووسائله وأسبابه بالقول والفعل قائلا قولته المشهورة والمعروفة به أجيبوا داعي الله يا معشر الإنس والجن وظل يدعو إلى الله مؤيدا من الله مدة ست وعشرين سنة فلبى دعوته سنة من خيار الناس أتوا من كل إن أحق ما التي هي خلاصة دعوته المباركة لتكون لنا زادا ننتفع به في ديننا ودنيانا وفي الختام نهنئ أتباع الإمام المهدي ومحبيه في كل مكان بهذا اليوم المبارك ونسأل الله أن يعيده علينا بخير كثير وبركات تعم بلادنا وسائر بلاد المسلمين والعالم أجمع وكل عام وأنتم بخير wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi alladi lam yazal والصلاة والسلام على إمام الله المختار وسيد العالمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu ñu ngi yëkkati nuyoo yi gën a teel di ko jëmee ci suñu xalifa Seydina Mouhamadou Mokhtar ibn Seydina Mamadou Laye hafizahullahu wa rahmatulah di ko ñaanal yàlla dolli ko ndimbal dolli ko tawfeex dolli ko wér ko jàmm te boole ñu kooku moom. di ci teg rakkam yu tedd yi al imam Muhammadul Bachir xafidahullah wa jazahullahu anna xayra jaza wa baraka fi di ci teg Seydi Muhammadul Amin ayyadahullahu bi nasrih di ci teg Seydi Maam Libaas ayyadahullahu bi nasrih di ci teg njaboot gi yëpp ahlu bayti Seydina Ali Maodo Mbacar te bu ñu ci tuddee sunu ñaari taaw yu baax yi muy Seydi Thiaw ak rakkam Seydina la ñu yóbbuwaale ñu ci des ñépp ci doom yi ak jarbaat yi ba ci sët yi ahlu bayti Seydina Ali seen jàmm ak seen rakk bi maama mu Seydi Maam Ibrahima Sy di gërëm sëy naa ci taxawaay bi démb ca Cambérène ak discours bu am bi barakallahu fiik yaa sëy di gërëm bu baax si di teew ci yar ak ceeb jëm yi macha allah jërëjëf ah di nuyu nag mbokki jullit yépp di mbokki réew mi ñépp ñi nu bokkul diine ak ñi nu bokkul diine te bokk ak ñoom réew mi bokk gi bokk ak ñoom jàmm muy xéwal bu rëy jàmm ji nga xam ne yàlla jagleel na ko Sénégal te macha allah yàgg na booba ak léegi yàlla yiir nu kiiraayu jàmm réew mi ñuy wax Sénégal loolu yàlla na sax nuy nuyu mbooleem mbokki réew mi ñépp waaye di jagleel ñu yoon ak soppe yi di maamul Mahdi yi alayhi salaatu wasalaam ku nu mën a ne ak ku ñu mën a ne di leen ziar bu baax a baax di leen ndokkeel ci bisu seen soppe bii di sëñ laa ñu moom mu tedd mi di leen xamal ne amaana ba xamante wu ñokk yu bari ci waaye xam na ne am na ñu baree baree bari ñuy bëgg sëñ laa ñu moom sopp ko sopp war ka léeg-léeg rek ñu feeñal ci ba nga yëngu ba ci ñii may junj sax ñi nga xam ne bokku ñëw ñoom diine ci ahlul kitaab yi ak ñeneen waaye muy nuyu Abdoulaye yëpp ñi teew fii ci barab bu tedd bi ak ñi nga xam ne itam ñu ngi ci dëkk bi ak ci biir réew bi ak ña tëdd ci réew di leen baax a ñi mën a ñëw ñëw nañu ku nekk nit jóge na fa ñëw fii ñëw yoo ngir fekk bés bu tedd bii ngir fedd li itam wuy sigi fedd li wuy sigi boole sant yàlla ndax ñu jëkk ne ba ñuy wisi metti woon na lool ñu doon dox ay distance yu sori di jànkoonte ay risque ci àll yi ba yëg si wuy si woote bu tedd bii ba ñu wuy see ñay dellu dellu ñu des des ci ak comme la nga xam ne moom la aay booxe min almuminina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila am na ca ñu jiitu ji am na ca ñu fi des waaye ñoom ñëpp am na lu bokk mooy ne la ñu jaar ci woon ak yàlla dëggal lan ko dëggal ci soppewuñu soppeekuwuñu delluwuñu ginnaaw yàlla xam ne ne ñooñu yàlla nañu yàlla boole ña bitim réew ñuy waa diaspora bi comme ni ko Cheikh Ousseynou daan defe rek nu ngi leen di nuyu ña toog ca fa ñu toog rek ànd jotaay bi ci moyens yi nga xam ne mooy yi ñu koy mën a amee ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziar turu xalifa bi di leen ñaanal jàmm foofu ngeen ne yal na yàlla dolli seen jàmm dolli leen ay xéewal bi jaar Seydina Limaamu aleyhi salaatu wasalaam di nuyu di gërëm di sant ñi nga xam ne ñooy organiser ñoom la organisation bi nekk ci seen loxo nu koy doxal. ci góorgóorlu bi ci ñett ñett ñu ngi leen di gërëm bu baax bi leen ñaanal yàlla mu fay leen coono yi nga xam ne ñu koy def ñoom ñëpp dundee dundee leen ñëpp ci koo yëpp nag groupement central ak groupe baax ak yett topp ko yëpp ñëpp ñu leen di gërëm mu leen di ñaanal yàlla mu leen yàlla fayal di jàpp si laaj moom. ah lu ngi profité ci occasion bi itam di feddali suñu tënku ci rëdd wi nga xam ne Seydina Limaamul Mahdi alayhi salaatu salaam moo ko rëddoon dénkoon ko sunu sang Seydina Majoor ibnu Seydina Limaamul Mahdi alayhi salaatu salaam di doon ndax la ko mu dénk ko da ci am loo xam ne dafa jëmoon ci ki nga xam ne moo doon jëmmal rëdd woowu moom moo tax kooku du ko woon mën a dénk loolu ndax saabu du wat boppam saabu du fóot boppam comme ni ko wax di waxee kenn du ñëw ne fal ma kenn du ñëw ne maa leen yilif wala boog nit ñu yiw ñi duñ ko def ka ka war a wax moo koy wax ci waxtu wi mu ko war a wax ci place bi mu ko war a waxee wax ka ni mu ko war a looloo tax rëdd woowu Seydina Limaamu Mahdi dénk ko doomam bi tedd jooju di suñu wëytu suñu sang Seydina Muhammad yàlla na ko yàlla koy ndëkk ka ba bàyyam làqoo mu taxaw ci saa si jëfee loolu nombre bi la rafet jël darajam jël xam-xamam jël juddoom lépp ma def bu ma ko defee ñeneen ñëpp def dégg ngeen ne ko sëñ naa ma san lay di nettalee ci waxtaanam mu ne danaka yow yaa ñàkk sa waaye ñun ñàkk ñu bàyyi yaa ngi nii yaay suñu bàyyi mu doon lu rëy te booba Seydina Isaa bépp na fi ñetti te ndax am olof dane ku tukki ñu reer ci sa ginnaaw waaye booba ñett ko sequl da doon ñu mel ni njabootu Seydina Limaamu ñi nga xam ne Seydina Limaamu moo leen yar ci loxo yar bu teg yar bu rafet ba mu ko defee rakkam yépp takku ci moom def noonu noonu la soxoog loolu quarante ans du natt bu du natt bu gaaw quarante moom du natt boo xam ne nga xam day jàll rek dem loolu ku am na yoo xam ne yomb naa muñ xam nga olof da ne xëy baax yomb waaye dëkk ci moom quarante ans nga topp sama waaye sa lu mu wax loolu lu mu waxul du waaye moom itam moom Seydina Mandione ba mu jàngalee jàngale bu rafet boobu wane royukaay bu rafet boobu moom itam ba mu ca tolloo te mënu kaa defal boppam fay nañ ko bor fay nañ ko bor bi te hésité wuñu maanaam rakkam yanu sawoon dars woowu bañ ca tolloo moom mu war a jëm ci moom tarinu te hésité wuñu muy Seydina Babacar muy Seydina Omar tisbaar ga nga xam ne moom la ñu tisbaar dañu ci julli ginnaaw ba ñu yóbboo Seydina Issa Rouhou Laye ca raw doom te tisbaar ga Seydina Babacar moo jiite Seydina ma ñoom nekk ci kër ba ñu génnee dafa taxaw ci buntu bi ne mbooloo mi Seydina jàng nañu ko mooy mu mudu xam nañu ko kon mooy kan xam nañ lu ñuy def ak moom Seydina Isaa jàng nañu ko moo yor yàlla Isaa xam nañ ñuy def moom waaye Seydina man yoon nii xamuñu mooy kan ku jara ko mu teg te nag ne leen man Babacar de ku ko topp ma topp ko ku ko topp ma ko waaye na ko

moom it Seydina Babacar ba mu fayee bor boobu maanaam bor boobu bañ ko fayee jaarale ko ci jëmmaam mu leblewaat beneen bor ci ñi ci ñi ci topp dégg ngeen wax ba ni ko imaam Sahir indee ci marché Seydina ma jox ak laaj ji ak ne wiiw yoon ki fi yàlla jiital kooku la te yëpp dara kon nag loola Laay waxoon ku ko topp ñu topp ko ku ko toppul ñu topp ko loolu la wax ci jëmmi Seydina Mouhamadou Mokhtar Laay nii muy suñu mag bu baax kilifa la kilifa gu mat kilifa la kumpa nag comme la doon bàyyi mais kilifa la kilifa la nag boo xam ne in intellectuel bu mag la di nga waxtaan ak moom bi di nga xeeb la nga ci xamoon ndax da say puus lool ak nag maîtrise maîtriser lépp nag date yee tur yee lépp macha allah mais day diis ko maa ngi day diisoo boo xëy na ñu xam ne léegi ñu ko moom moo xalaat ñu seen naa moom la mooy kilifa xam la ñu xam loolu sàmm loolu ñu fay tool yi ndax yàlla ñu leen di waat suñu bàyyi la ci sa borom yi. waaw waaw mooy gàllankoor bi di naan waaw. moom moom moom de ak prise beeg yi. dafa am des am tuuti rek ci noonu ci classe rek di woy di fekk ko maanaam kenn ay xam-xam mu yëkkati lu bëri jox ko bi mu ko joxee loolu ci teewaay ci kon mu beneen débat après mën naa ko di wax. ca kër gi ci diine ak mooy lépp loo xamante ne rek dañuy mu ne mu am nag baax nga nii balaa mu ñëw mu bëri may li nga xam ne dara nga dund loolu mais dara xam nga ñu may tax ñu may dara dund loolu mu ne la baax nga lii li gën a mooy mbaa lu ñu tudd rek dinaa wax ne comité lii li war na def maanaam lii li war a def te ñu war a def ñu xam ne suñu la jaay yi ngeen xam ne lu leen di digg def waaw jox sa xalaat ngir ñu mën a sotti rek lu leen di digg def waaye li nga xamante ne ci sa bopp mooy ci ba ci yow ci ci jub ak ak loolu nga xam ne maanaam kii yëkkati na ko moom yëkkati na ko waaye gis nga ñoom ñu yëkkati na ko yoo xam ne nii ëpp ci waa ay ay ay ay xamal na ne mooy li nga xam ne lu ñu mën a am bu mu jegee ci yàlla dinañu wér mu jege woon ñu fekk mooy sama moom de jege mooy saa bu nekk ba kenn di nekk dina la ku gannaaw bu fekkee yàlla def lu baax bi nga wér mu jege woon lu gën ci yàlla kon yiwu àll àll rek lañu sëy di laaj moom digal ñu ko def te nag ñett yëpp nii yoo xam ne dañ ko jox mu baax xaalis xaalis la salaam la ko wax salaatu mu daal شكر المتعة وهو المتبع وإن عبد المرء ñu wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñëpp daal ñu ci ko topp boo ko bàyyee lu war a xalaat te xanaa mooy nit dina am fii si àdduna balaa def balaa ndax di nga si ay borom yonent bi nee na alkane la def waaw loolu ñu tabax topp sa nas lu la sa nas dicté rek nga def ko mu yee ñu def mbaa nga wax ko leneen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na moo yóbbu ci xàq yéen a si yàlla mu ne wax ajraalul mar'i bi nafsihi gërëm sa bopp naa sa bopp yërëm sa bopp sa xalaat kese nga gis sa bopp kese nga gis gisoo keneen gisoo daal yaa ngi yàlla maa ngi yonent bi nee na ku ko topp mooy lu alkane yàlla na si yàlla kon ñu dugg ci li nga xam ne moom la nekk moo di ko baaxante ci jamono yu yees yi na jiitu yàlla lu ko yàlla barkeel nangul ko ci ko boole nag lii ñu suñu yàlla lu ko yàlla nekk ci jàmm mu doon rek ñu ñëw ñu ñëw yoo xam ne dinañ fi ñëw ci lu ko ci tawfiq bi yàlla mu maa ngi wax ñu ci laaj daal maa ngi ci daw ak ko di ci ñëw mu fi nga xam ne sunu sang si si laaj boo xam ne ay salaatu salaam ñu wax naan wax ci yàlla mu ñu ci màcc ci mu wax ko ci yoon ci ñu ووصيكم بأنكم شر خير لا معشر وقولوا بسم الله ولا تقولوا بالصلاة sëñ bi Seydina Limaamu Laay sallallahu alayhi maa ngi leen di teewleeku ci seen dox ak ci seen toogaay maa ngi leen di teewlu ngir nekk di ñuy jox aw yiw di jox wëlis lu bon nekk leen ci nit ñu baax bu leen nekk lu mukk ko di wax kon gis nga dañu gën a benn dafa am lu ñu teg suñu si wàllu moom la mënoo yëngu lu tënk suñu ko ci kaw yow yàlla ak sax ñu gën a mën a téye suñu bopp ci lépp lu feebar dox jëm ci wala tukki jëm ci lépp loo xam ne yàlla gën a mën a mën a am muy mel loolu lu mel ni képp mooy yàlla ndax kat dañu war a xam ne kàlla bi nga xam ne moom la wax jëm ci mooy yàlla wala loolu kay bi nga xam ne mu ngi daw jëm ci mooy yàlla tànn ko tànn ko seytaan iblis la waru lay waru lay seytaan iblis te loolu yàlla suñu borom mu ngi koy wax ci suuratul Isra wa ajlib alayhim bi xaylika wa rijlika mu ne Iblis influencé leen loo mën ku la ci nangu rek toppal yóbbuwaale àndal ak moom mu toppal ngeen ngeen jëm ca ngeen ne yéegal ko ci sa warukaay ngeen ànd dem maanaam ndigal la tax biit la. xam nga léeg-léeg nit mën na la tàggu la maa ngi dem nga ne ko yoon waa ko nga loolu du ndigalal demal waaw ndigal lii nga aj bi xëy ni ko ndigal loolu ndigalal bi boo fàttalikoo na ñu ngi toll woon ci azurukum fi alsinatikum wa fi ayunikum mu doon ñaari cër yoo xam ne cër yi ci boppam la tuddoon jëm ci bàyyi loolu xel ca la xam ne cër yooyu moom la ñuy def ñu jëmale ko ci lu baax te bañ koo jëmale ci lu bon mais bi yoon tuddul cër bi xam nga rij la mu ne woon azurukum fi arjulikum day tënku trop ndax bu boobaa amaana ba kii war waruwaay wala ki ñu boot wala yooyu yëpp mën na defe ne génn na ci xam nga du tànk rek moo la yóbbu fa ngay dem d'ailleurs léegi sax tànk bareetu fu mu lay yóbbu lu mu jege-jege am na yeneen moyen yoo xam ne nii dem kaay moo tax ci xikmam ci xikmam moom imam Ahmad alayhi salaatu wa salaam mu ne mu tudd xaal bi mash ak xuruj azurukum fi xaali mashikum wa fi xaali xuruj maa ngi leen di nemmeeku ci anam gi nga xam ne yéen ngi dem ak anam gi nga xam ne yéen a ngi toog loolu digal ngan la bu ngeen di dem na jëm ci bi loolu tere bu dee lu bon la toog loolu nag àndoon na ak barke àndoon nag ndimbalal yàlla ndax gis nga dénkaane bi wa usikum bi an takunu mushatan lil xayr wa tullaasi dénkaane bi ci barke dénkaane bi tax na ba am na ñoo xam ne juddu nañ ci Ndakaaru yeroo fi màgge fi dund fi ba dee am nay barab yoo xam ne musuñu ko teg seen bët musuñu faa teg seen tànk yombul de dund nañ seen jeunesse yëpp te ku xam na ak ndaw ni mu mel dund nañ seen jeunesse yëpp ba mag ba màgget ba génn àddina am na ay bërëb yoo xam ne xamuñu nu mu ne te xam nga bu doon dañ ko xamul sax nga ne dañ ko xamul te xam nañ ko xam nañ ne mu ngi fii tout mu ngi fii tout ñu ngi koy romb mu ruural Iran bu boobaa nag seen lisaanu xaal day wa isa marru bil lagwi marru mu ruural kiraam lañ koy rombe waaye ñoo ko gën romb bu jekk dem loolu mooy mëniñu Seydina Limaamu Laay loolu mooy jëloore Seydina Limaamu Laay loolu mooy xar baaxi Seydina Limaamu Laay moo tax naka naka imaam Saxiir waxe ca ba muy waxtaan dañ njër lan la loolu la wax si bi mooy rasuul ku mën naka def mooy rasuul ku mën naka def ku mën a jubal benn nit rek nga la coow li batu ko wax nee ko surtout na wax nag ngay wax di saaga xangat net yow man ngaa jubal benn nit jubal ka rasul de moom moo jubal mbooloo moo xam ne fu ñu mën a ne cib jub rek mooy rasul ku mën na gis nga benn nit rek jube ci sa loxo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na xayrun min ad-dunya wa te loolu ba mu koy wax Seydina Ali ibn Abi Talib boobu daf ko doon yàq muy dem ci xare boo demee defal nii defal nii defal nii defal nii ba muy teede nag nekk na ngal la na nga xam ne yàlla jindi ci sa loxo benn nit kese moo gën ci yow addina bi ci biiram maanaam li ngay wut ci addina bi ci biiram lépp nga góor góorlu ba jindi benn nit teg ko ci yoonu siraatal mustaqim loolaa ko moo tax waykat ba wax ne mboolem li fóori yi yàqal du ñu fi def lu gën jubal téere yu bari am na téere yu bari fii ñu bàyyi lay bàyyi fii téere yu bari bu ñu xudab yii te barakallahu wa jazallahu bàyyi seen ak al imam ahmadu sahir ak professeur Assane Sylla ñi nga xam ne ñoo ñu ko defaral ba ñu kii ak ba nga xam ne suñu sang Seydina Isa Rawlaay moo ko sasoon suñu maam suñu cheikh ak cheikh Muxtaar muy Busraanul Xabiir téere yu bëri na te njub gaa bi yaxal yaxal bind bind bind téere yi rek doon téere waaye ku mën a jubal benn nit jubal ko waay te ñu bàyyi Seydina Limaam muy jubal mi mën a yar ab communauté bi lëmm ba ñëpp xàmmee ne ñii ñu baax la ñii njub la wax bi mu wax ne kuunu sullaaxan nekk leen ñu baax est-ce que ñam ko digal duñ ñu baax laaj leen ñeneen laaj leen jàmbur <laughs> ñu baax ñu baax lool ñoo xam ne boo leen bëggee di nga reconnaître ñu baax lañ boo leen bëgg li nga reconnaître te saa boo soxlaa mbaax dem te ñoom fekk leneen du la ko ñàkk bokk ak ñoom course du la ko xaj ñàkk mu defar ginnaaw lan après mooy ñaata après ci cent la cent quarante trois ginnaaw cent quarante trois ba léegi seen naa maamu ngi defar ay nit ba léegi mu ngi baaxal ay nit ah baax na kon nag kan mooy ku baax ku baax mooy ku gëm yàlla gëm nañu yàlla waaw wala déet <laughs> ku baax mooy kuy def lu baax waaye mu ngi def lu baax waaw wala déet ku gëm yàlla mooy mooy ki xam li ko war ci digganteem ak yàlla mu ciy taxaw saa su nekk ku ko daal. ku baax mooy ki nga xam ne xam na li nga war ci boppam mu tey taxaw di ko def te kenn du ko sonal xam na li nga war ci njabootam mu koy def te kenn du ko sonal xam na li nga war ci société mu koy def te kenn du ko sonal ku baax daal mooy koo xam ne xam na li nga ci askanam al mu ci xëy bi si tool wallaay ak affaire am depuis Seydina Issa Laye ba ci Seydina Mandione Laye ba ci Seydina Babacar Laye ba ci Baye Seydi Jawlaay ba ci Seydina Maam Alhamdulilah ba ci Chérif Abdoullah ba ci Chérif Al ba ci Maam Ibrahima Sey ba ci ñu baax ñi li ñuy li ñu xam li ñu war ci suñu askan ñu koy taxawee te duñ ci xaar ñu ñu fay wax leen ndax loolu am na wala de. te nga xam dañ koy yenu te nga xam la sa xam la ngeen sa xamul ko kookoy ku baax baax rek ngir baax baax ngir yàlla xam lu baax di ko wax di ko def di ko jëflante nit ñi ku bon nag mooy soxaanu kooku jarul la ñu fi perte suñu temps moo tax yàlla ne am naj abul lazina amanu wa amilu salihati kal mufsidina fi ard am naj abul muttaqina kal fujjar abadan déet ndax yéen di ngeen yemale ku baax ku bon yàlla nee na moom itam déedéet ndax da ngeen yemale yéen ku ragal yàlla ku ñeme yàlla yàlla nee na moom it déedéet duñu mase boo leen bëggee yemale da ngay da ngay que yàlla mi dul yemale moom moo leen yemalewul ba pare loolu moo tax ñu baax ñu tedd ñi fii boo leen teralee yàlla teral leen boo leen teralul yàlla leen te boo leen teralee tedd <laughs> wallaay boo leen teralee tedd du ñu xaste du ñu ŋàññe du ñu xuloo égoïste wuñu bokkuñ ci dara luy yàq réew mi te lépp luy defar réew mi suñu loxoo nga te laajuñu ci fay kenn mu wax moom alayhi salaatu salaam Seydina Limaamu mu ne wanzuru ilaa uyubikum wala tunzuru wala tanzuru ilaa uyubi gayrikum man araada an tazhara uyubuhu falyanbish uyuba gayrihi lu am solo ci société bii mu ne dee leen xool seeni sikk dee leen xool seeni ayib yéen bu leen xool ayibu jàmbur mu ne attention ku bëgg say sikk sikk ak say ayib wuññeeku sëggal si di wuññi sikk sikk ak ayib ak ayibu jàmbur ak ay dëkk lu ñu soxla ku ñu ko wax si suñu réew mi ci jamono jii ñu toll tey nafsul uyub tas na Sénégal ndax du loolu la ñu nag mu ngi leen di jéggalu bu baax baax baax dañuy soññante soññante soññante waaye yoon wi rek doo ci yu bari yoo xam ne du lu nit ah, ci tur xalifa njaboot du nuy buur de fu nu sunu bopp ay buur du nuy buur defuñu sunu bopp ay buur ay sang lanu sang nag day koo xam ne laka ka mu jàpp ne surgaam la war ka defal moom ci boppam muy wëlbatu bu defal ko laay nee na alayhi salaatu wassalaam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 léeg-léeg ñu toog si jotaay sax di nelaw man kay tey man nelaw naa kàmbale nelaw naa la ay guddi ngay tegle lii du politique du ay meeting du da déedéet baatil la faw bu baatil bi wàccee ñett yenn dañu nekk ci jàmm loolu foog ngeen xam mais ku ñu xel lañ ci moom mii boo déggee ni may waxee da ngay gis ne dafa fans xalaay naka dul xay bi ne imam bi man moom daal day ràkk rek di jëmee ci baaram rek ah na tax ko waxaale nañ ñëpp rek xalifa bi fu mu toog billahi mu ngi leen di kii joxe instruction leen rek rek loo bi mbool buy am foofu nañu ñëpp a toog sécurité samay rak naka homme de tenue yi def nañu ko yàq moom ci ko rafetal na ku déglu maam maam li baas démb déglu seen naa ni nga ko bi sunu taal bi yaru toog sunu rek jàpp ak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 wallahi dañuy bokk sunu sëriñ kenn kenn dund ko ci ñun ñi kenn ak njaboot bi oyof rek la fi Seydina bi mënoon bàyyi ñu am ñeewante ci doomu aadama dénk ñu dara lu am joxe toog walla wallahi lancé dénk ñu dara ndax rek am ñeewante si yéen tey bu àddina ak àllaaxira nekkoon suñuy lox nii lañ koy saawaate ngeen yéen ñëpp ngeen jëba ba day loolu faw ñu wax leen ngeen xaw a moytu di juge ni te xamoo la muy dund lan nun ñu ngi leen di liñ ba xam yooyu yëpp bu ngeen liñ ba xam ñun li ngay dunde dañuy jéggalante rek ànd ànd ba waaw lu nuy dunde tey bu ngeen taxaw kenn suñu nelaw bu appel bu jub sëy kenn du maanaam daanaka luñ fi wax mu jub sax yàlla ñu nekk ci lu baax di wax lu baax bañ a xool sikki nit ki tey xool si sikki alkamaalu lillahi yàlla rek a mat assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu